alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah li nga xam ne Cheikh Ibrahima Niass moom la ñu dénkoon te ñu nekkoon ko ak moom te sëriñ bi fàttali ñu ko léegi mooy li mu rëdd lu ci bokkul rek bokk ci sëriñ bi wax na léegi ne yi ci bokkul yëpp noo ko mën a tuddee yi bokk ci rek su ko suuf itam war nga fit wu nii wane ne yaa ko fi sos lim ñu dénkoon mooy sharia loolu lañ doon dund ak moom sharia boo xam ne mu ngi ci téere yi ñëpp ko xam ak leeru baatinu xam yàlla te du wàññi ci sa jaamu yàlla dara xam yàlla bee ba réere lépp lu dul yàlla wante di jaamu yàlla ba mel ni ku réere yàlla itam loolu la ñu dénkoon mu wax ne bi daahiri sharci wa nuuri almubin arubbi saalikiina bila shakkin wala riyabi sariya bu feeñ bu ñëpp xam ak leeru xam yàlla kooku ci lay yar ñi ànd ak man kon li ci bokkul yëpp bokku ci xaj abdallah radiallahu an daanañu dénk bu lii xewee mu ne nañ fàttali dañ fàttalil taalibe yi lan ci la bàyyi nekkoon lu ci li ci dolleeku yëpp mu ne nañ ne bokk ci dof dof lu bokk ci soli sagar bokk ci sëqal bopp dot bokk ci soli kurus ci baat bokk ci yéen ko ci indi nekkul ci benn téere bàyyi bind nekkul ci jenn waxam mësu koo dénkaane dof dof lu la kurus Cheikh Tidiane ak ñi ànd ak moom def ne wasinhu fi kiisin wutal mbuus moo koy denc wala nga def ko ci sa jiba wala nga bàyyi ko ci sa kër waaye duhut luy nekk ci baat boo ko defee ci baat na fekk dangaa ngaa jum rek wala danga nga galsandu quelques minutes nga dindi ko daa amoo foo ko teg dof dof lu benn kurus ak ñaari kurus ak ñetti kurus ci baat bokk ci bàyyi masu ko def masu ko wax mësu ko digle dof dof lu it bokk ci soli sagar bokk ci sëqal bopp bokk ci ku civilisé la woon yoon wu civilisé wu set wu rafet sharia bu weex tàll la xaqiqa bu leer naññ loolu la ñu bàyyi woon bu leen ci yokk ku ci yokk na nga xam ne yow waaye bu kaas ka ne bàyyi de bokk ci wi yoon ñu ndey bàyyi wu ñu loolu defu ko ci suñ kanam nu gis ko bind ko ci benn téere ñu jàng ko mësul ñu ko wax mësul ñu ko dénk nekk leen ay julit nekk leen ay taalibe tijaan nekk leen niti faydu nekk leen ñu naan ci xaqiqa tey jëfandikoo sharia sa xaqiqa ku ko bokkul ak yow sax waru ko xam ci yow sa sharia na ne ci bitti nga bokk koog ñépp lii la wax bi dahiri sharci wan nuuri lmubin arubbu salikina bila shakkin wala riib kon nag la wax na léegi ne mbir mi du mën a yiwén lu may ñu delloo ko ci cosaan la rek delloo leen ko ci na mu nekke woon xataa xataa ni ni ñuy ni ñuy tudde yàlla di ko sikkare yàq yi bari na ci lu duhut noonu du bokk ci hay hay lallaa du noonu lalloo du noonu ha illallah suñu daje wii bi weesu sama mag Ibrahima Ahmad Diop tàmbali na ko ni ma nañ gën a fàttali nit ñi ne xattaa ni ñuy tuddee yàlla bokk ak ñi bàyyi daan wax bokkul ak li mu daan digle boo gaawtuwaan ci sikar sax wala nga yàq ci baat mu ne nii loxoom ne na diib sikkar yëpp dafa amoon aw tur am na bu tudd kursi am na bu tudd mbowen am na bu tudd sarikunda am na bu tudd banjul loolu ñi ko xamoon yëpp xam nañ ko waaye amu ci benn bu am lëlloo ak bu am xay ha e la ñuy wax xamsatul istifham bi laajte bi amu ci a a laa ilaa goyin amu ci a amu ci duur li ñuy laajte yàlla laajte wuñ ko def ñoo wóor ne mooy yàlla dara lañ ci laajte wu dalañ ko delloo ci cosaan la tuddee leen ko mu wér nit ñu ko daan digalee tudde yàlla muy sikar sëriñ bi junjee na ko léegi bàyyi daf ne wilaaya ci la dalee ci la yem alquran ne foofu la mbir yem wa inna ila rabbikal muntaha zikrul ilahi muntahal wilaya li annahu al mabdahu wan nihaaya kuy jëm ci yàlla ci zikrullahi ngay tàmbalee waaye booy jeexalit ci zikrullahi ngay yem dootoo ko romb ndax foofu la zikrul illahi muntaha al wilaya li annahu al mabdau wa nihaaya kon nag nañu nekk ay julit yérit njulit loolu iman bala loolu tawxid bala ak ñuy appliqué ponk l'islam nii mu ñëwee woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu baax nañ koy def lu bon nañ ko bàyyi lu ñaaw nañ ko moyandikoo bu ñu yàqantee defar leen bokk gi defar xame gi defar njulit gi nañu xejowantee ku nekk na nga baal sa morom même bu la tooñee te bul tooñ ndax tooñ ay lëndam rek la lay indil yowmal qiyaam aw zulmu dulumaatun yowmal qiyaamati yonent bi salaatu wasalaam léegi rek lañu lamin di fàttali ne bàyyi ngi wax naan bu yonent bi doxee ma dox waaye bu taxawee ma taxaw loolu mooy ci sunna rek laay teg sama sama tànk ci sunna laay teg sama tànk ci alquran lay teg sama tànk ku bëgg a dégg déggal kuy toxal toxalal lii de la ñu indiloon nii la ñu àndewoon ak moom lii lañu ñu baaloon bindal nañu ko fii waxoon na ko ñu dégg ko nii rekk moo di mbir mi xam yàlla taxul nga nekk dof boo dof dof dof la rek xamatoo yàlla boo defee lu ñaawit xamatoo yàlla boo jëfee lu ñaawitam xamatoo yàlla bàyyi na na gàcce la ci ku ne xam naa yàlla ngay meloo wala ngay jëfee loo xam ne ñaaw na aarun liman istadaa wa li irsaana an yataxallaqu bima xashaana gàcce la ci kuy woote ne xam ne yàlla ngay jëfati loo xam ne dafa ñaaw col gi na rafet jikko ji na rafet jëf ji na rafet jaamu yàlla gi na rafet lii la ñu ak moom lii lañu ñu rëddaloon lii la joxoon ay muqaddamam yépp yépp yi ci sosu gannaaw gi yeneen i muqaddama ko fa indi waaye du muqaddama bu bàyyi de bàyyi day benn muqaddama du indi loolu ci ndigal xanaa ku jàll yoon wi lépp lu lay wutale ak jullit ñi aw melokaan moom mosu ko nangu waruñoo wuti aw melokaan bu ñu waruñoo wuti itam jëf te mooy lu baax mooy lu jub lii la daan dénkaane nii la àndewoon ak ñun lii la bind baal ñu ko fi ku mu jox lijaasa ku nekk la mu la dénk ak la mu bind ci lijaasa ba moo di ne jaamu yàlla saxoo laab di julli ca mbooloo ma ndéem am nga mbooloo mooy jullee wattu julli juróom ca waxtu ya ca mbooloo ma nga bëgg mbooleem sa mbokk jullit yi rawaate na ñi nga bokk ak aw yoon nga wormaal mbooleem ñi mag ci tariqa bi muy kibaarul muqaddamin nga jox leen seen worma lii ku mu jox lijaasa ku nekk ci loxoom loolu la la bindal te moo nekk ci mbooleem ay bindam moo nekk itam ci ay dénkaane kon nag taalibe Baay Laay daal li muy tekki mooy maa fi dàq jaamu yàlla maa fi dàq tudd yàlla maa fi gën a sell jikko maa fi gën a baax jikko maa fi gën a mën a bale maa fi dàq muñ loolu rek lay tekki bu loolu amul rek waa mu ne alku rek ci la borom di mujj kon nag wéetal yàlla nekk sofi sofiste boo xam ne bu sell la sofi sofiste mooy mu ne mooy xam yàlla te dudu àddina te di ko jaamu bàyyi ne wa man min haadihi fa huwa haalikun képp koo xam ne sa sophisme duwul xam yàlla ak sellal ak jaamu ko ak dëddu àddina dëddu duwul soli sagar duwul soqal bopp du tilim dëddu mooy lépp loo def ne kii moo rafeti yére fekk yow gisoo ko yow kenn ki ngay gis kii moo lekk lu neex fekk gisoo lu neex li kenn ki ngay gis loolu mooy dëddu àddina doo dara ba gis ci àddina lépp rek yàlla lay doon loolu moo di dëddu àddina kon lii la wax ne ci la yar moom la ñu bàyyeel moom la bind moom la waxoon nañ ci jàpp kon jàppaleen ci loolu te delloo ko ca cosaan la ca na mu gën a rafetee en tout cas ku ci jàgg wala nga def yeneen daal boo ko askanee keneen boo ko askanee itam moom min hu bari moom day ku ci deñ la ay muqaddama bi tam ñu ci dañ lañ ànd naa ak ustaas bu Ndaw ma ak benn waay mu ngi sol ñetti kurus ma na ko yow lii lan la mu ne ma jullit nga mën ne ko ah jullit la mu kay mu ne kon de xamu leen yàlla mën na ko mën naa nekk mu ne soo xamoon yàlla da nga xam ñetti kurus yi lu muy tekki ma ne jarut ma koy tontu parce que wala tumaari jaahilan fatataba wa ma alayka adbuhu moom da ngay sonn waroo koy yedd kon yow la ñuy yedd la muy xamu ko bu fekkoon day woote ay pays pays dafa nekk ñett kon ñetti kurus lu mu ci doon amut loolu ay caaxaan la bokkul ci diine ji bokkul ci tariqa bi bokkul ci faydu bi amul kenn ku ko mën a lay ci wenn bind wu bind wala ay waxam kenn mënu ko lay kon lu muy tekki dof dof rek wuuteeg nit ñi sol ñetti kuréel ñu ne kii taalibe la ma ne déedéet taalibe keneen nga taalibe keneen nga bàyyi musu koo def musu ko wax musu koo digle bind ko kon fan nga ko jëlee sama nijaay fii ci sama garaaw di ma dégg El Hadj Daouda dégg naa ci moom mu ne dafa bi ñuy njëkk a def foto bàyyi ndaw yooyu di ko takk mu ron moom da koo takk dem ci bàyyi nuyu ko mu ne ko li lan la mu ne ko sa foto la daayira bi ñoo ko def nit ñi di ko takk mu ne ko tekkil ak nit kenn du ko takk yi da la bàyyi waxoon kon nag loolu laa leen di fàttali di leen ko dénk di leen ah, ko fàttali di ko fàttali sama bopp sama bopp di leen ko dénk di ko dénk sama bopp sax leen ci jaamu yàlla sax leen ci tudd yàlla sax leen ci jaamu yàlla sax leen ci tudd yàlla ci làmmiñ ak ab xol seen xaatir na jokk ci yàlla bu mu ci jógee yàlla ku ko fàttali rek am nga bàkkaar yàlla ku ko fàttali am nga bàkkaar ndax danga ko fàtte woon loolu moo tax bi alquran ne ala bi dikrillahi tatmainul qulub arif ba ne déedéet bi zikrillahi tasdaadu zunub mu ne fàttali yàlla ci la xel di dalee mu ne déedéet fàttali yàlla ci la bakkaar di dollee ko ndax dañ ko fàtte woon moo tax a fàttali ki nga xam ne dañoo tudd yàlla mu jooy dafa ragal yàlla ki ñu tudd yàlla mu xaal ba yëgatu ko kooku dafa ragal yàlla waaye ki ñu mu muy mbëkk ay sakket am yu muy def di wéqoo ko xalangu ku ko mas a def bàyyi na la waxal aoudu billahi min asheytaani rajim cheytaani dong la daf ñuy firil alquran ci Madina daan def ne bu firee ci arab bu déwénee mu firi ci wolof dafay wax ne nañ seet wolof yeeg xawsa yeeg naar yi lu ci ëpp rek bu xawsa yeeg naar yi ëppee mu ne kon mu firi ci arab loolu moo tax prime aram bi bariwul yaakaar naa ñaari yoon rek la ñun ñoo daan def yëfu ndox mi daara rek buñ ne niñ bindal li sëpp ñii metteelu ñii firilu jox ko suñu kay rek sàmm njaay démb jóob sàmm njaay démb jóob ba mu fees rek wolof yëpp ñu firi ci wolof cinquante bi nag wolof la doon firi firi ba yàgg ba ñëw ci arashi doomu aadama mu ne nit ki bu waxee ne maay yàlla waxut ne maay yàlla yàlla rek moo wax ne mooy yàlla ndax yàlla rek kay nekk yàlla yàlla nga ne na dofut waxut mooy yàlla yàlla rek a wax ne mooy yàlla danga ko déggee ci moom yontu yàlla Moussa lu ko garab goo waxoon inni ana allah garab guy leer rek di tàkk mu di ko jege di ko jege ba yegg garab gi ne ko summil say dàll yaa ci xadratul qudsi man mii maay yàlla garab ñi may wax ne may yàlla kenn du ko contesté mu ngi yow alquran la nit ne may yàlla jërul nga koy contesté xanaa li nga xamul rek ne mooy nit waxut ne mooy yàlla yàlla rek ma wax ne mooy yàlla koy ko am yàlla jox la lan nga wax ne moom nga doon yow am yàlla jox la du yaa ko wax te yow yaa jox mu ñëw ci arasu doomu aadama ne yàlla bind na guddi bind na bëccëg nit bu la wanee kanam bëccëg la bu la wanee gannaaw mu ne guddi la yàlla bind na géej ndox mi naqari ubbi na def ndox mi neex mu ne ndox mi ci gémmiñ gi dafa neex ndax loo mos xam na saf nam safut waaye li ci nopp bi dafa naqari ndax lu ci dugg dee mu tàmbali ko rek daal dina lu nekk rek ñeenti koñ la ñaari tànk ñaari loxo loo xool gis ko ca mu ne loolu mooy ñeenti pays yi moo di maqaamul alxam maqaamul xamdi bi nga xam ne boo ko seetee ci alquran sar yi tàmbalee ci xamdu danga koy lima ki baaraam mu ne dafay jinjël maqaama yi ahut nasut jabarut malakut alhamdu kee yàlla yénent bi maqaama ahmadiya maqaama muhammadiya maqaama qutbaniya xadratul qudsi xaqiqal muhammadiya xaqiqal ahmadiya te bii day dugg ci bii bii dugg bii bii génn ci bii bee nekk fa moo tax bàyyi ne man de dama toog ba yàgg rek ñu ne eh génnal ci muhammadiya mu génn ci xadratul qudsi nga ñëw jëriñ jaam yi summa nuudi min xadratil qudsi ya ahmada faxruj yafuuzu minka al animu summa nuudi min xadratil qudsi ya ahmada ثم نبي من هدية القدس يا أخ ماذا فخر وفوز من كلامه waaw fa tabadda qutbul faridu araahu fa tabadda فتبادى قد الفريد أراه هين هين وفتاه سميهما فتبادى قد الفريد أراه هين هين وتساءل ويما mu ne feeñ na feeñ dafa yéen ngeen jël ak moom muy xutbul farid muy xutbu zaman bi nga xam ne dafa wéet ci jëmmam euh, alfardul jaamia kenn lay doon ci àddina ci téeméeri at yu nekk am na ñaar ñu ko set ñaar ñi ñeentañ ci seen suuf ñeent ñi fanweerañ ci seen suuf fanweeri ñeent fukk ñu nekk ci seen suuf ñeent fukk yi juróom fukkañ seen suuf juróom fukk yi juróom benn fukk yi mu nekk seen suuf soo ko boolee li ñu tuddee daayiratul awliya suñ ko boolee kenn moo leen lii def mooy xutbul farid mu ne na xutbul farid bi feeñ na waaye gis naa ko ne sama melokaan la yore fa tabadda xutbul farid arahu laabisan suurati fakabaada qutbul falil bu awaahu laabisan suurati fataaba liqaa'u wa maraadu min almaali wa qalbi wa min alfilki qad ilaahu nee na xutbul farid bi ba ma ko gisee mu sol sama melokaan yore sama portele dal di nekk man wala man ma nekk ko wala mu nekk ma xëy na moom moo may nekk ndax man mënuma ko nekk ndax man amuma waaye moom moo may nekk mu ne foofu nag fi jaar bee di dugal nit ñi ci xadratu ut xilul xalqa Babacar mu lu mu wax da ابتلوا الخلق حضرة القدس من فهو مصطفى ضمير فوائد ابتلوا الخلق حضرة القدس من فهو مصطفى ضمير فوائد رضي الله عنه ci la jaar ci loolu la jaar bay dugal nit ñi xadra déglu bu ñooy tàcc ba ngeen di dégloo na ngeen mën koy xam ci la jaar bay dugal bay dugalaate ci xadratul qudsi waaye di génnee mandarul mustafa su ma dugalee ci xadratul qudsi ma génnee ko ci mandarul mustafa mooy xaqiqa al muhammadiya xam nga yàlla moo tudda muhammad yàlla mooy muhammad waaw boo déggee arab muhammad mooy kuñ sant ki kuñ sant ki yàlla rek la muhammad yàlla moo tudd muhammad ndax bu tuddutoon muhammad du kon duñ ko xam xam nga bu ne woon kémm kémméeral ca yàllaam ga comme li Ibnu Ataaw lay wax kaan allahu wala cheya maahu wa huwa ma alayhi kaan yàlla moo fi nekkoon mu ne bu fi dara nekkagul mu ne ba tey loolu rek la Ibnu Ataaw la loolu wax ca xikam waaye bu yàlla ne woon kémm ci kémméeral googu kon duñ ko xam moo tax mu ne dama nekkoon mel ni ndàmm moo xam ne kenn xawum xamuma ma bëgg ñu xam ma def te jël yi ba ma defee te jël yi am lu génn am lu feeñ ma tuddee ko Muhammad ci moom lañ may xamee ci moom lañ may xam amul kenn fa bii fa bii yaarifa ne kooku xadis la kuntu kanzan lam or xadisul qudsi mooy waxu yàlla kuntu kanzan lam oraf fa xalaqtu xalqan fa sammaytuhu bi muhammadin fa bii yaarifuni dama nekkoon damm moo xam ne kenn xamuma ma tëjël lii dara génne ko tuddee ko Muhammad ci moom lañ may xamee amul kenn kuy xam yàlla lu ma nga jaar ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy lan da ngay jaar ci alfatix lima uxliq wal xaatimi lima sabaq lan mooy lan lan mooy loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xutbul bakri moo ko wax xam nga salaatul fatiha Cheikh Tidiane taalifu ko Cheikh Tidiane defu ko fi la ko fekk xutbul bakri yi mu ngi dëkkoon ca Tunisie defoon benn xalwa ne yàlla dama bëgg nga feeñu ma nga ma bëgg ma bëgg nga feeñu ma wan ma ana ban salaatu ban julli laa mën a julli ci yow ba àgg agsi ci yow ban julli laa mën a julli ci yeneen ba agsi ci yow mu ne ñu ñu bindal ko salaatul fatih li ma uxliqa dégg naa sama benn sëriñ wax ne ci xalamul qudrat yi nu ko firi du du du ko bindee ci xalamul qudrat yi mooy xudul bakk yi dafa xool ci néeg bi mu nekk jànk bi xeddeeku mooy gën ak asamaan fii ñu bind mbind moo xam ne mu leer nañ la di ak leer ñu bind ci asamaan si allahuma salli ala sayyidina muhammad alfatixi li ma uxliq walxaatimi li ma sabaq yàlla yow yaa xam ni ñuy jullee ci sa yonent kon nag jullil ci sa yonent bi nga xam ne moo tudde Muhammad te yaa ko tuddee noonu te yow loolu saw tur mooy faatix li maa uxliq tëju woon moo ko tijji mooy ak nubuwa tëju woon na moo ko tijji gis nga ba fi Isa jógee am na boo tëju ne kenn amatu ko ba mu bëgg mat juróomi téeméeri yi moom moo ko tijji mooy faatix li ma uxliq moo ubbi la tëju woon wal xaatimi li ma sabaq moom moom mottali la jiitu woon lu jiitu woon mooy yonent bi day ñëw dem keneen ñëw dem keneen ñëw dem moom bu ñëwee du dem te keneen du ñëw kon mooy xaatim li ma sabaq wante mooy naasarul xaq bil xaq xaq xaq kenn la moo dimbalee yàlla ci yàlla moo dimbalee yàlla ci yàlla ndax ndax kenn ki rek la kenn ki moo dimbale yàlla ci yàlla kon yàlla moo dimbale boppam naasarul xaq yi bil xaq waaye yëmu ci nag bu jógee ci xaqiqa ba jóg ci naasirul xaq bil xaq day agsi ci sharia wal hadi ila siratika al mustaqim mooy juble itam ci sa yoon wu jub bi nga xam ne mooy jàpp ak sangoog julleeg woor al hadi ila siratika al mustaqim xam nga sirato siratan hunaka mustaqimun wa muawaj bu ñu xasee tudd yoon rek yaari yoon a am wu dëng rek ak wu jub loolu moo tax mu naatal ci al mustaqim siratika almustaqim doora wax na wa ala alihi waaye yow borom bi tabaraka wa taala sa yonent bi ñun mënuñoo julli ci moom lu toll ni ni mu toll boo sori ne na yonent bi darajaam ca yàlla su tolloo woon darajaam bu tolloo woon ak karaamaam kon dana àgg ci boo ci xabru tudd yonent bi rek borom dekki law naasabat qadruhu ayatuhu idaman ahya ismuhu hiina yudaa daari sarrioni kon darajam lu rëy la fa yàlla kon xamuñ nu mu toll kon ak juli ñu ci moom yow yàlla xaq qadrihi lu toll ni mu toll lu toll ni mu toll rek ñun xamuñu xëy na àdd bixaar la xëy na àdd nujum la lu toll ni biddiw yi ci ne lu toll ni suuf si ci lu toll ni duusi géej gi ci lu toll ni gàncax gi lu toll ni garab yi déedéet lu ko ëpp xaq qadri yi lu toll ni mu toll xaq qadri yi waaye wa miqdaarihi soo ko posé woon itam diisaayam na mu toll wa miqdaarihi al azim Xutbul Bakri yi lii lañ ko jox mu indi ko amul kenn amul kenn baa dina soso ba baa dinay jeex kuy xam yàlla te jaaruloo ci salaatul fatiha li maa ndax moom la Abul Bakri ñaanoon ne wan ma salaatu goo xam ne su ma ko jàppee yegg si ci yow moo tax Cheikh Tidiane dal di jël salaatul fatiha lima ughliqa lool nag la bàyyi di wax naan udxilul xalqa xadratul qudsi yi ujli manzarul mustafa udxilul xalqa udxilul xalqa xadratul qudsi manzarul mustafa اتقن القلق حية القدس إليه وانصر المصطفى loolu laa bëggoon a mottalee sama daje ak yéen di ñaan ñoo dajewaat ko lu bari du tere danaa delloo Babacar